àdduna bu ñu nekk nii rafet na bépp xeetu rafet ak ay garabam yu verte géejam bu yaatu mala yi siy dund ak yeneen ak yeneen yu bari yi waaye bu weesoo loolu yëpp àdduna bi dafa yore tamit beneen kanam beneen kanam bu bokkul ak rafet ndax ci àdduna la feebar am wasin bu metti soxorante yàqalaate liggéeyante ak yeneen ak yeneen yu doy waar waaye yàlla mi sàkk àdduna bi ba pare wàcce ñu si xamoon na loolu yëpp looloo tax mu wàccee ay ñaan ci àdduna bu nit ñi di si faju di si njëriñoo waaye ñaan yooyu du ñëpp ñoo xam ñu koy xam dañuy tarbiyu ay at di jàng alxuraan te sëriñ Babacar Ndiaye bokk na si ñooñu ak sëriñ Babacar njaay moo xam muy tële néew kàttan mën na ko traiter ci 45 jours nga yëgaat sa bopp wala boog mu jolle si garabu jooni jooni yi nga essayé ko gis si sa bopp jigéen bu ëmb tamit bëgg am doom si anam bu sedd te du metti du jafe Serigne Babacar njaay am na ci ay garab yu baax a baax lii di ndoxum siti tamit hémorroïde interne ak externe faru rab coro rab xale buy lekk suuf te mënu ko bàyyi xale buy jooy rek tout le ñaan bu lay ubbi wërsëg nga alal bu bari ak yeneen ak yeneen yu bari wool Serigne Babacar njaay mu jàppale la si si numéro bii di 77 453 52 94 wala 70 881 29 81 wala boog ci 78 611 78 31 ak Serigne Babacar Ndiaye alxuraan sa aju dina faju si bu neexee yàlla. ngir yéen ñi bëgg ay publicité moo xam ci njaay bi ñuy def wala liggéey bi ñu nekk service bi ñuy joxe wala ci seen entreprise woote leen gaaw ci 77 687 85 71 su ko defee ci ay njëg yu yomb nga am ay clients yu bari kon nag bul ko tardé benn yoon. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi benn waaye ngi boo xam ni. ab docteur la nekkoon ku baax lool daan liggéey ci benn hôpital benn bis mu jënd ay fleur ngir dem ci hôpital ba di nemmeeku ñi nga xam ni ñoom la fa nekkal di liggéey bi mu àggee ci hôpital ba muy wër néeg yi nga xam ni ci la maladie tëdd ngir di leen nemmeeku ak di leen ñeewantal ci la duggee ci benn salle fekk fa benn góor goo xam ni mu ngi màgget ba pare daal di sonn lool ci la laajee benn soxna bu fa ne di ko xamal ni waa kii moom lan moo ko dal nekk na fi lu ëpp at waaye ba ba léegi day jàmbat day sonn rek di jooy saa su ne te bis bu ne nii la dëkkee ak ñun di jooy rek docteur bi daal di toog ab diir waa soxna si ni ko waaw ndax kii da koo xam docteur bi di ko xamal ni kii day xam naa ko bu baax ndax ginnaaw yàlla sama papa bi muy génn àdduna kii bokk na ci li ko sabab da koo jaayoon ak kër daal di si njuuj njaaj dem defar ay faux papier ba ñu ko yóbbee tribunal di ko àtte mu daal di seede ay fen loolu métti woon na sama papa ba daan na ko fàttali ak di ko waar di ko xupp ngir di ko ragalloo daan ko fàttalee xaddis bi nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallama moo ko waxoon ni wottandiku leen ñaanu ku ñu tooñ waaye loolu lépp taxul woon mu bàyyi ko xel ba ginnaaw bi sama papa daal di génn àdduna te it moom mi bokk na ci ñi sabab man ak samay mbokk ak samay mag ak samay rakk ñu génn ci dëkk boobu nga xam ni fa lañ juddee màggee fa yaroo fa ci la àndoon ak sama wayjuru jigéen daal di dem ci suñu village waaye diir bi ñu fay nekk lépp saa yu suñu xel demee ci moom rek dañuy wax ni yàlla rek ci moom la ñu wéeru yàlla doy nañu wéttal docteur bi di wax ku jigéen ki ba tey ni ko te it moom yëmul woon ci loolu rek ndax daan na tooñ ñum daan bokkal di liggéey ñu mel ni sama pàppa ci la duggee ci saal bi nga xam ni fi la góor gi tëdd góor gi daal di xool docteur bi daal di koy xàmmee ci la commencé di jooy góor gi di xool docteur bi ba yàgg di ko xamal ni man de xam naa ni tooñ naa la te tooñ naa sa way jur te yemuma woon sax ci loolu daal naa def képp kuy jéem a tolloo ak mbagg man wala képp kuy jéema a man mbagg ma daal di lay faagaagal dawuma la may dara ndax yàlla dafa saxal sama xel ngir ma di ko fàttaliku waaye mu ngir tooñ yi ma daan tooñ jaam ñi may dund mbugalum àdduna daan naa digal samay doom ngir ñu jël alal ji nga xam ni dama ko nangu woon ci ak tooñaange ngir delloo ko seeni boroom waaye ñoom nanguwuñu woon loolu dañoo profitoo ci sama feebar bi daal di may génne sànni ma ca àll ba daal di jël alal ji di ko jëfandikoo. waaye ci noonee nag ci la ma benn waay jëlee xawma ko mu daal di may indi ci hôpital bii waaye boobu ba léegi maa ngi fi di dund dund gu metti di naqarlu ci sama xol feebar yu baree bari dajaloo ci sama biir xol. am na sax diabète am na ulcère mboolem xeetu feebar yu bon yu ne dajale naa ko ci sama biir xol bi ñu di ma ci faj ba tey mënuma wér. sunu borom bàyyi na ko fi ngir may fàttaliku mboolem lu bon lu ma mas a def jaam yi ma ko yëg ci sama biir xol mu may metti lool. waaye bàyyi fi sama xel ak sama xol ngir man maa fay jëf may naqarlu ci àdduna mboolem lu ma defoon doomu aadama ci lu ñaaw lii may dund dee sax moo ko gën ndax sama njaboot bàyyi nañ ma ginnaaw mboolem ku ma amoon war nga ma ginnaaw te fii mu ne nii maa ngi nii di jànkonteel ak mbuugalum àdduna ci mboolem lu ma defoon ci lu ñaaw maa ngi koy gis te mbuugalum yomal xiyaam ñëwagul dal ko bu mu doon tay dey mboolem lu bon duma ko sax jéem ba di ko def ci la docteur bi jooye jooy yi metti dal ni ko man de jéggal naa la lépp loo mu defoon te it xam naa ne sama papa dana la jéggal waaye benn pexe rek moo am mooy nga jug ñu dem mboolem koo defoon lu ñaaw nga daal di koy jéggalu te xam naa ne ñoom ci seen ay xol yu rafet ak ci seen yërmande dañ la jéggal mboolem loo leen defoon te boo paree nga jéggalu sa boroom ngir mu jéggal la mboolem say bàkkaar ci la waajee daal daal di préparé ngir ànd ak docteur bi ngir dem ci képp ku mu tooñoon daal di koy jéggalu kon mbokk yi histoire bi li ñu ci mën a jàngee bëri na lool ndax jaayante doole gi bëri na ci réew mi lool réew mi gis nañ fi ñoo xam ni dañu leen di jaay doole jël seen alal ba ci ñi nga xam ni sax seeni waajur dañuy génn àdduna bàyyi leen alal seeni mbokk profitoo jaay leen doole jël alal ji ba tey ñoom ñu tumranke lool nañuy xoolaat suñu jëflante suñu diggante ak nit ñi nañuy rafetal suñu diggante ak nit ñi ci lépp nag. kenn ku nekk war naa bàyyi xel bis bi la sa borom di taxawal nga war a leeral sa dund gi ci li nga ko paase. kenn ku nekk ci ñun mu fay la sa jëf waaye yàlla na nu yàlla àtte ci yërmandeem. Guelongal TV.